maa ngi sant. merci maa ngi nuyu mbooloo mi fi nekk yépp ak suñu nattangoo yi ak euh, presse bi di wax rek ne ma ngi ànd ci bu baax et sans réserve ci yi nga xam ne nii sama co yi loolu lañ wax tey Sénégal dafa nekk loo xam ne nii xeexoon nañ ko depuis mille sept cent Sénégal di voté di diisoo jàmm am fi kon tey xëy na tey candidat yi ñoo fi nekk damaa bëgg lancer message képp koo xam ne nii candidat nga boo xam ne nii dañ ne recalé wala nga nekk votant simple votant soo mënee wone sa naqar ci lettre boo bind wala kayit boo bind yóbbu ko ci préfecture yi wala ci juridiction yi ndegam li nga xam ne mooy suñu àq tere nañ ñu ko mooy génn manifester ñu defe ko ci ay kayit bañ xam ne lii Sénégal gépp la ñor reporter élection nag dafa mën a jur lu garaaw ndax tey mën naa am situation bi ñu ngi koy contrôler mais mën nañ dem ba décembre contrôler wuñ situation bi ñu dem voté waat loo xam ne nii dañ naan tant que beneen président nekku fi rek président bi fi nekkoon moo fi nekkaat te loolu mën na diire lu mat 5 ans sept ans ndax ñun dañ ko dund loi lañ wote assemblée nationale chambre de commerce yi ñu waroon a renouveler depuis 2014 ñu wote benn loi comme nii ñu ko def rek nag à titre dérogatoire tant que teguñ tant que defuñ élection rek ñi fi nekkoon fi sept ans ngi nii élection amul Je pense que nous ngeen ma on doit nous tous mobiliser pour combattre cela parce que le Sénégal il est en danger et aujourd'hui les acteurs économiques ne travaillent pas personne n'est à l'abri et je pense que si on ne règle pas ça le Sénégal peut aller dans des situations ou des conditions que nous, ne pouvons plus le maîtriser. Donc nous lançons l'appel au président de la République qu'il essaie de ressaisir pour comprendre que le Sénégal, c'est pour les Sénégalais et il faut qu'il essaie de respecter les engagements pris et les décisions prises par les hautes autorités juridiques, euh, de, de la justice pour que le Sénégal dépasse, euh, dépasse cette situation que nous vivons depuis 2020 et qu'on aille dans des élections transparentes et, et, et, inclusives pour qu'on redémarre nos activités. Je vous remercie. Euh,